léegi yow boo ñëwee propos yooyu nga dem ci espace public bi ne ne ne Kandé la yow procureur warul xaar sax su doon maa ko wax moom kenn waxatu ko li ñuy wax ne affaire yi tolloowul bu doon man maa ko wax. Hmm. loolu moom wax ji jeex na bu yàgg kon. maara day taali yu bari ñu ngi koy muñal gaa yi fii mais duñ ñu ko muñal ñun te pourtant ñun ay sénégalais lañ comme ñoom nañ waxante dëgg ñun ñëpp ay sénégalais lañ loo muñal Ali war nga koo muñal Abdou Nguer. ndegam États-Unis ñooy jàpp doomu président bi ngir dafa yoroon arme bu amul këyit daaj ko ci kaso bi kon xam nga ñooñu faale wuñ keneen Sénégal justice boobu la soxla te dañoo gis justice bii nag li muy maanaam les chroniqueurs yi nga xam ne ñu ngi jàppale waa Pastef information yi ma ci mujjee am li liñ am ci plainte war na jege dix ba quinze te gisuma benn buñ ci ubbi man rek am naa ci ñaar ba ñett. man rek am naa ci ñaar ba ñett yoo xam ne ba tey kenn ma ne ma enquête wala dara bu dul bu Azoura la ma sécurité woo enquête dossier ba dem na tribunal ca ca yu yàggee cinq mois te bu dee yeneen cas yi da gis day gaaw c'est vite fait Adama Fall convoqué nañ ko tey nee nañ gis nga affaire yi day gaaw fat fat la fat fat yooyu nag bu ñu ko commencé remarqué du dal ci kenn ci ku dul président Bassirou Diomaye fay parce que dañ naan ko lii bi ngay ñëw da ko fee fekkoon mu fi am ñu ne Macky Sall day làq ñi mu àndal di di di di di di di torturer ñi mu àndalul mais yow boo ñëwee loolu moom jaasi nga war a wut dagg ko bu doon buum guy dem la dañ ne ko dagg ko maanaam yow sa doom yow Bassirou Diomaye Faye ak doomi euh, baykat ba ñooyam ci luwaa bi te loolu nga war a appliquer loo ca mooy rek ëllëg di ko layoo. xam nga ne cap kii cap kii génn na sax at mi kii moom nekkatul militaire blessé de guerre la bu génn nekkoon ci Bougane Gueye Dany léegi bàyyi na Bougane ma nga ca Sonko tax lu ko neex mu wax kii rek ngeen gis de Ibrahima sàll moo njëkk a wax ci mbirum militaire mooy mu ne am na ay gendarme yoo xam ne dañ leen a dugaloon ci barigo ta taal leen Ibrahima Sall ko fi njëkk a wax de Ibrahima Sall fii la toog ne deewu Didier Badji ak Fulbert Sambou détails yi détaillé ci loo xam ne même même même ñii ci biir gouvernement bi ñi mu wuñ ko détaillé di wax niñ leen ireeg niñ leen kii yeeg jam-jam yeeg wax wax ci yu garaaw ba tey mi ngi fii di doxi ay soxlaam kon nag gis nga lii bu ko teelu deferee ne Samba bu ne mën naa wax ci armée te man li may li may information yépp li may tribal yépp police gendarmerie armée même su ma tegee sama bët bii ngay def lu ñaaw su ma munta ñëw ba ci yow wax la ko. Hmm. duma ko wax ci palaatoo da nga leen da nga leen a ragal wala respect la boo leen. man ku yàlla bind ragalu ma la. <laughs> xam nga lu may bañ. yow mi ko def yow kese. Hmm. am na nu ma la koy waxee dina laalaale ñeneen. parce que keneen bu koy relayer danaan policier yi. waaw ah, ñëpp la koy boole de. cest que nga fekk benn policier benn chauffeur jox ko xaalis nga wax ko xam nga lu chauffeur beneen chauffeur di wax tàmm nañ ko lii lañ ñuy def yàqaale der yëpp. fekk kenn ko def. ceeb nag saako ceeb boo ko jëndee di nga ci gis ay tànnit mais tànnit yi bu ëppee ceeb bi dootul ceeb koor boo dem loolu moo fa am. comme ceeb la tànnit yi ci biir ceeb bi yooyu moom ci biir koor bi mënul fexe bëpp ceeb bi 30 minutes nga ci concentré wu nga dindi tànnit yi tànnit yooyu nag ceeb bi nga ci war a ruus ba doo tuur ceeb bi quand même mais tuuma yi ñuy jël di ko teg ci kaw force de l'ordre man de neexuma bugguma ko te armée ñoom duñ tontu. xam nga tuumaal koo xam ne moom moom du la tontu dafa metti du la tontu. Mhm. mun ta tontu. Mhm. tuuma bu metti sax mooy lan. ne ñoo dem euh, service demee retiré. yow sax ma laaj la vidéo bu doo ko génne. vidéo boobu kay yow mu ngi fii leer na nañ. déet fii lu fi amul lu fi nekk mu ngi fi. waaw ah, yow loolu yow lu koy am yi man sax dama naan Ousmane Sonko nee na nga ne ma anam man la mu ngi nii. vidéo bi de wala bala ngaa pare yow depuis samedi. samedi laa la commencé yi nga wax ñëpp gis nañ ko. waxaaral rek ñëpp dégg nañ waxaaral rek nee nga man tuumaal naa police d'accord pour l'instant nangu naa mais yow dama la wax indil ma ko. dama la bëgg a xamal ne la réew mi ba mu doon yow. toog yoon fan. ah réew mi kay daa tànk bi na laal suuf. yow fii xanaa yow ngay toog di saaga premier ministre kenn desuwu la. maa tey ah waaw kon kay dëkk bi am na yoon am na démocratie. léegi na léegi noppal ma sa bopp. moo tax ma ne la dëkk bi am na démocratie. xanaa xamoo ñi ngi may man xam naa la de xam naa sa xam naa li la tax a jóg. man sama mission doo doo doo sama mission. waaw xaaral wax la. dama bëgg mu leer. man damaa xam li la tax a jóg. yow doo sama mission. xam nga li tax. dañuy daje. xam nga li tax ma man man ma mën a géem man géem bi dama kaa mën xam nga lu tax damay xam sa mission may ànd ak yow. dama dem ba xàddi. dama bëgg nga xam ne yow doo sama mission <laughs> daa ñu la fi jiitu man damay défendre Pastef. déedéet yow nga ñëw taxaw ci yoonu Pastef. ñu jàkkaarloo loolu kese la mais yow doo sama nga may sosal doo sama déedéet ma la li ngay waxee. nit mu de presse bi. waaw léegi doo ko indi conférence de presse intégrale bi. même boo demee xaaral xaaral xaaral wax la. intégrale baa ngi fi du jeex si yëpp boo demee. intégrale bi yow boo jëlee une heure de temps. vidéo fa nga am ko nga dagg ko. boo ñëwee nga tegal ma ko fii quand même. li nga wax ñëpp dégg nañ dama ne waa léegi ba ko ñëpp dégg seen mais mënoon ko teg xanaa dalay suturaal rek. déedéet mais man naa ko sànq xam nga eh, bul tuumaal seen de. seen bu ko amoon bu ma nekkoo teg ko mu teg ko. Hmm. lu leer laa lay wax te seen maa la jox digal boo ko amee nga teg ko. man nee naa la baatu policier def dara ma dem toog di dénoncer ne policier bee def nangam loolu musul am du caage ne nag musuma gis ñu def dara quand même du caage ne dañoo balaa comme nees waaye dama ne la pour protéger ñeneen la parce que boo nee police rek boo ko see wax police rek laal nga corps d'accord dégg nga laal nga koor te man gis nga affaire Ahmed bi position bu noble laa ci mas am envers police ndax ba tey jii fa laa amaat taxaw ndax dama ne police mënuma def sama bopp man kenn mënu ko ci dugal nag police defal nit attestation te amul permis loolu sama bopp bii mënu ci dugg loolu moom sama bopp bi mënu cee dugg tant que police jàkkaarloo wut ak man ne ma def naa ko. sama bopp bi kenn mun ko ci dugal quand même wala li ma li ma nekk nekkagul sëfoor moo tax. kon gëmoo ni policiers yi maté nañu ci mais loolu mënu mënut a dugg sama bopp quand même. parce que loolu man njuuj njaaj la loolu du lu baax moo tax sama bopp bi man sama noppi noppi garmi la lu baax a ciy dugg. Hmm. moo tax waxi Ousmane Sonko mënu cee dugg a dugg sama nopp yi ba dugg ci sama xol bi am fi baas toog fi mënut ta ne man booy wax lu dul dëgg bu jubee bu bu jubee sama nopp yi rek xol bi rejeté na ko bu yàgg na leer. dama ne saawaay Samuel débaal te bul jéem a indi yenn détail fii vidéo bu amul ci réseaux sociaux yéen yéen waa kër partage yéen ñi nit wax fi tooxi doona te yéen njaaba njalle wu leen ko jéem koo jaxase non loolu amut wala kon rebo yi ci YouTube bi ñoo ko dindi bokk hmm. yow di ba léegi ma lay laaju vidéo te man lu ma wax ci Ousmane Sonko de boo ma ko laajee même bu ma la ko joxul balaa émission bee jeex vidéo bu wàcc sama portable te dëgg-dëgg mafia bi ci sama ginnaaw nag wóolu naa leen ci Ousmane ko moom keroog bañ ko falee gars yi remarqué ne page Facebook am ba am na am na ay articles yu ñu koy supprimer am na vidéo yu dem la gars yi gaaw dem tànk lu ca waaye man a root root na ko denc te xam ne bis dina ñëw chaque jour nga gis vaar bu bees nag. d'accord na leer. d'accord euh, muy noonu ci mbirum général Kandé la nekkoon euh, beneen aussi ci ay révélation yi doy waar mooy euh, Adama Faye bi nga xam ne def na ko muy vidéo bu viral aussi. buñ ci mënee am sax donte